Tacavun. Tacavun. Tacavun. I know him. Tacavun. Ali. Tacavun. Ali. Matajgi. Ali. Abdu Jambar. Ali. Nari Malaikala. Ali. Sekolah jumlah. Ali. Jangan sekorum. Ali. Mana yaji. Ali. Dah julinga. Ali. Mana madede. Ali. Mana baiji. Ali. Dah julinga. Ali. Mana madede. Ali. Tacavun. Ali. Ale, ale. tey si taaja wóor la. tey muus bu suwaar laa. muus bu suwaar. muus day suwaar. muus day suwaar ji. yow muus bi naaw na tey. kii mooy kan. yaa ngi akku yi. yaa ngi indi akku yi. waaw kay. akku day am kay. eh barsa lañ ko am. lan ah yow mi ne baar la am. baar moo tax ñu sant baar. ak ko ak baar. ah moom si jaaxal de. la taala bon. ale. yàlla ñu ngi taala bon. ale. ngi taala taala bon. ale. taala bon. ale. fegal waaw Fani te ni mak yi fu mu toll nii mag ko di def defoon ko daaw fekkee déwén foofu bi baax coronavirus coronavirus suñu tëlee dem benn tegal tegal tegal même tëri ma Allez. Allez. Yéen ñuy seetaan nag toog leen foofu rek seetaan leen ñu indi leen fenn. YouTube rek. toog leen. mimix la def.